ndaanaan bi moo woote Faramareen yéen jaakaar lool nag la Sinapeur di président de la république laa ko tuddee ñang mu xarañ loo ndaanaan nuyu nañ la fay nañ la seex bi ngeen ñëw tey fii lan ngeen di waajal ñëw nañ nag fu ñu miin nag dinaan ko Almadies man ma tuddee ko croisement Niamey Poos avec le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck temps yi Wally toogul lan ngeen di préparé fans yi gis nañ ko tey suba la jóge ñu ngi préparé rek ñoo àndoon États-Unis tey maag moom ñoo ànd ñoo ànd ñibbi si 9 heures du matin ñu ngi daal ñu ngi waajal lu rëy daal surprise rek surprise te dina génn ay fan yu néew incha allah rabi ci kattan suñu borom. ñëw tey tëgg tey soirée. loolu mënut a ñàkk liggéey rek liggéey rek waaw liggéey rek euh, job lu bari tuuti wax job lu bari rek. coow diggante waali Seck ak Sidi Diop euh, ñaaxarañ loo nan la ko gisee. man coow li damay dégg coow li rek mais dama jàmm sa coow amul. ndax wax dëgg yàlla ay sénégalais lañ ay musiciens lañ Wally Seck musicien la Sidi Diop musicien la yàlla na def jàmm daal ñoo bokk réew mi àddina mu solo na ku ne liggéey rek te Wally moom newul ci mission ci euh, newul ci compétition ci mission la ne. waaw mais moom dafa tëgg soirée mu am incident. ñu xëy réaction yi cible bi nekk Wally Seck. waaw damay man xam réaction damay dégg rek ñu naan am na incident am na incident mais incident yi wax dëgg yàlla tegu ma sama bët. tegoo ci sa bët mais gis nga ko ñu wax ko ci internet bi rek am internet moom lépp la wax man sa léeg la waxal ma lu négatif léeg la ñuy positif même pas une semaine nga baal si Sidi Diop te bokk ci Wally Seck non bokk ci Wally suma xarit la suma doomu ndey la ma bokk Faramareen musique am naa droit am naa droit dem baali fu neex comme Sénégal comme un mélomane mais est-ce que fi nga bokk duñ ko gisee neneen. non garaawul àddina mu solo ñun moom mooy loolu àddina mu solo liggéey rek. kon tey daal fii moom dina yaaññi. fii moom dana mel ni ba yoro jaayee nag ma ne gën nga du dem. loolu dina dafa miin fii këram la fi lay recevoir. waaw vogue laa lay wax. te dafa génnoon namat namante ak fan si. waaw dafa namoon namoon dafa namoon ak fan si nag. waaw ça fait 15 jours joué wuñ fi nag tey bu ñu nag. dugal ci biir daal maa ngi lay invité ci biir. jaax na ñu ngi ñëw ñu ne jaajëf Bour Gueweul TV. jaajëf waagaan la seen peur président. ci xolu Sénégalais yi. dëgg la. Euh, boroom càq-càq. waaw <laughs> waaw waaye gars xam nga. waaw doom ndey Waly. frère Waly Waly moom borom baax la. waaw am jom baax bëgg nit ñi am yërmande. su ko yàlla fayee xolam mooy loolu noonu. waale amul jot ay yeneen soirée di def léegi léegi xol bu set la yore. yaa may dégg kenn gënu ko ku baax la gaynde la am jom gaynde nag mooy xam gaynde na ko gaa yi ñaanal rek. na ko yi ñaanal yàlla lafal ko cat musul ko seytaane ak yàq kat parce que Sénégal moom yaa ma gën a xam. waaw waaw mais liggéey rek. yaa ma gën a xam ëtt bukki la coow mu nu fay ñàkk. te waale moom ca kaw ca kanam. ñi ngi ñëw ci la borom baax la. Ah, ay ca waagaan ba tey ni ma leen ko waxee yéen a ngi buntu Vocan ah, ci Wally Ballago Seck la Faramareen tey moo woote fii du yomb ñu xoolal leen keneen waagaan